lii mooy liggéey. xoolal li ma lay expliqué rek Samba Maroc booy jige fi ngay fi nga logé hôtel bi nga logé motard yi ñoo lay yóbbu ba terrain mais ñun pourquoi pas champion Sénégal ñun suñu premier journée ren dañoo tardé ci la ñu amoon génération foot dañ tardé dañ dem temps bi des 20 minutes 20 minutes mënoo si échauffé wu mënoo si présenté wu ñu présenté wu 10 minutes échauffé wu 10 minutes yi ñoo lay dugal ñëpp ay bi jàll dugg doo tardé minute. parce que da ngay ñëw arrivé deux heures avant mais pourquoi pas championnat Sénégal mënu noonu mënu noonu ñu wax ak Macky Sall bu équipe bi di ñëw mais méttiwul ñaari motard da ngay jiital ñu ñu ñu ñu jiital oto bi mu dugg même pas cinq minutes oto bi dugg après nga bàyyi gars yi doxal seen soxla ñun foofu hôtel bu ñu mën di nekk dëkk bu ñu mën di dem motard ñoo ñu dugal ba si biir terrain dem ñibbi duñ tardé une minute mais pourquoi pas championnat Sénégal mënu élevé noonu ñun dañuy ñëw rek di gérer rek da ngay pare rek jëm doo maase wu doo naan vitamine dara wala loo def rek yaa ko jëlee sa bopp. donc daal professionnalisme si si tur bi daal la yem quoi. amul professionnalisme de dañ koy wax nii rek man loolu du ma ko ragal wax parce que damay joué championnat Sénégal su ma ko ragalee wax naa fekk la su ma ko ragalee wax su ma nee championnat Sénégal ñu ngi ñu ngi si professionnel waxuma dëgg suñu professionnalisme dafa des trop waxuma des tuuti des trop dafa des lu bari bari bari bari parce que mënuñu ñu joué ñi di tardé nga war a football de 16 heures. nga ñëw 15 heures 50 si biir stade bi parce que ndax lan oto yi ñoo la bloqué autoroute bi oto yi dawuñ lii nangam mais pourquoi pas motaar yi ñëw jiital équipe bi même pas 5 minutes nga yegg fi nga yegg ñoom ñu yibbi pour bu ñu paree match garaawul heure bu ñu na c' est important ñu war a mën jàpp si loolu championnat bi gën a élevé parce que bu ñu demee ay Guinée dañu raw si championnat Sénégal si championnat bi ñu war a xoolaat suñu bopp du Guinée moo ñu war a raw du yenn équipe yi ay Afrique yenn équipe yi waruñu ñu raw si championnat ay Gambie raw. waruñu ñu raw ci bi ñun dañu war a élever comme ñëpp di commencé génn salaire bu baax di ko fay joueurs mais am na yenn dëkk yoo xam comme Maroc Maroc boobu nag am na yenn joueurs yoo xam boo leen waxee kaay dem France duñ dem parce que ay salaire bu baax la ñuy ko foofu tey booy tey ji Sénégal fii boo fi dee am day salaire bu 1 million ba 2 millions bu ñu la waxee kaay dem tey nga jege say mbokk di am ñaari millions mais baax na di si mën di si mën denc di si mën tabax sa kër mais fii mënoo ko am mënoo ko am championnat Sénégal dafa baax avant ma donc Maroc laa mujjee mais Maroc jël naa fa loo xam ni aw ma ko sax équipe aw ma ko parce que Maroc def naa fa saison une saison moo ñëw ñu joué ñu joué coupe trône mais coupe roi bi ma gaañu joué naa jot mu jeex ma gaañu après par la suite moo blessé au niveau du bas-ventre ma wér ñëwaat bi ma ñëwaatee fekk gars yi tempo bu doy waar ma ñëw fexe ba ñëwaat commencé woon naa fa dugal ay bii jotuma fa am trophée nag parce que ñu équipe ma nekkoon dafa mel ni boo ñëwee Sénégal nga jël équipe bi gën a ndaw fii équipe bi gën ndaw fii nga fay jouer équipe boobu laa daloon waa Maroc équipe bi ma daloon dafa ndaw amuñu doole mais année bi ma fa nekkee jot nañu am ay yoo xam ni mos naa waroon benn paas sax mu ne ma yéen ay jàmbaar ngeen parce que équipe bi maintien rek la daan jouer mais ñu dañ dem allé bi jeex ñu jël quatrième niveau bi jot naa fa dugal ay 4 buts parce que dama gaañoon bi ma ñëwee ay 4 buts laa am ma ñëw joué ak ñoom phase retour yi deuxième match ma damm ma damm moom blessure bu metti bu ma bu ma jógee si blessure bi fayatuñ ma ah waaw fayatuñ ma benn dirigeant ku ma woo duma jël comprendre nga sama appartement ma dëkkoon fayatuñ ko dem naa ba meer bi bi dëkk borom kër gi ñoo ne di ma menacé dama mhm. da génn xam nga rek affaire naar pare ma si laa dalee si kawam ne ko maire yow xamoo ma xaw ma la man ay dirigeant ñoom fi dugal donc boo amee looy wax da ngay dem nga wax ak ñoom parce que du man maa du man nga joxoon say caabi ñi ñu fay la circonstances yu métti yooyu loolu moo taxoon trois ans laa signé ak ñoom war naa fa def ñetti at mais li ma jot a dund lu métti loolu moo tax man tam ma amaat jom mooy comme li ma la wax rek man rusuma ma dem mu baaxul ma ñibbisi comme dama nar a dëkku jàmbur xaw ma fa kenn nekk fa benn nit duma fa toog di souffrir aussi bàyyi samay mbokk fii ku nekk di ma woo xam nga mbokk yi ndeysaan man ay magu jigéen laa si man lañu yaakaar dañ may woo téléphone yónnee ma léegi xam ñu ma toogee moo tax ma ne pourquoi pas du ma ñibbi si waat xam ne man sama loxo baaxul maanaam jàpp ma pour pourquoi ma ñëw su seen wet toog ñu may gis ñu xam ni yoruma du ma rusa wax yoruma yoruma parce que su ma yoree dama naan yor naa ma rusuma lool ma ñëw pour ñu xam ne yoruma ma toog seen wet pour que boobaa du xam ne duñ ma laaj mais tey fi ku fi tukki wax dëgg yàlla seen mbokk woo la parce que dañuy yaakaar ne yor nga te aussi tamit booy tukki pour loolu la dangay tukki pour dimbali say mbokk te man su ma amee pour samay mbokk la donc su ma tukki loolu laa njëkk xalaat am pour defal leen ku si feet jot wala nga am problème nga woo ma mën ko lijjanti mais su ma demee ba affaire xaw a dëgga yoratuma non damay dew ñibbi si ñoom ñu xam ne yoruma ma toog ak ñoom galéré na ñoom noonu demee tax na tey bu ma demee dëkk si kàttanu yàlla nit dootuma nax parce que jëlee naa fa expérience boo xam ne si côté signature si côté vivre bi yooyu yëpp jël naa fa expérience bu bari Maroc boo xam ne tey bu ma demee tey dëkk nit du agent bu ma mën nax du dirigeant bu mu mën nax